commune bu Djiddah Thiaroye Kaw fare fii ci département bu Pikine ci njiital ndey ji réew Cheikh Dieng amal nañ juróomeelu édition Djiddah Thiaroye Kaw set wecc mu doon programme bu am solo lépp ñu lal ko ci set ak defar yoon yi te fas yéene aaru ci mbënd mi waaw tey dañoo nekk ci cérémonie officielle de lancement 72 heures yi nga xamni bi juromel édition juromel la commune de def diko def ngir ci xélu askan wi question wu La question wu xex mbalit question wu amélioration suñu cadre de vie ren bokk dafa amal ab ak réew Pologne jaare ko ci ambassadeur bi ngir mu sóob ay loxoom ci boobu xeex ngir mu gën a ñoŋ. cérémonie ren bi nekk boo xam ni tamit dañ ci profito ngir sargal ngir gërëm ambassade Pologne bi nga xam ni dafa ñoo fekk ci liggéey bi mu jàppale ñu ci yokk doole mairie bi ci wàllu matériel boo xam ni lii dafa jëm ci sunu commission environnement. lii jëm ci ay association de jeunes ak ay groupement de femmes yoo xam ni guddi ak bëccëg dañoo nekk ci seen quartier diko ko diko diko entretenir donc ñu ñëw jàppale leen ci matériel bobu ngir mëna ñongal ñoŋal seenu liggéey ñu bëgg ci sant bu baaxa baax monsieur l'ambassadeur de Pologne bëgg ci euh, au nom de toutes les populations Djidah Thiaroye Kaw ren ji itam yamook feebaru mbas bi di coronavirus tàbbi ci nun rew ba taxna bo ba léegi itam maire Djidah Thiaroye Kaw bayil ben yon ay loxom mais mu nek également édition bo xamni dafa nek dans le contexte de lutte contre la pandémie de la Covid 19 mu nek lo xamni mois de mars bi mu duggee ba léegi commune Djidah Thiaroye Kaw am ci taxaway bo xamni askanu Sénégal gep gis nañ ko opération biñ ci mujjé def mooy cent mille masques yi nga xam ni mairie Djiddah caaree Kaw daf koo defar dugg këroo kër biir Djiddah caaree Kaw kër gu nekk ñu war ñi ñaata nit ñoo fa nekk ñu jox leen masque lu tolloo ak ya fa nekk yokk ci marché yi yokk ci bitig yi yokk ci fépp foo xam ni mbooloo dafay daje mu ci église ba mu ca euh, muy ca jàkka ya moom Cheikh Dieng di ndey ji réew bokk moomeel bu Djiddah caaree Kaw mu ngi xamal président de la république Macky Sall ne ko njiitu réew dëgg day am fit te ñemee wéet ci dëgg. ñu bëgg a ñaanaat président Macky Sall mu am courage yu xam ni kuy jiite il faut nga jël ay mesures yoo xam ni ay mesures yu impopulaire la wante buñ la ne ëpp nga daw loolu am njiit waru koo def.